daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax ngeen am da nga am taw taw fexe rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi nekk nekk si liggéey xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu yàlla rek lañ fa bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye ñun xaas ngeen am. wal tux ni nii yow sun borom yàlla nag ma doylu loo bi suxbatil ahbaabi ci may ànd ak ñi nga xamee ne mooy say soppe mooy ñi la gëm an suxbatil ahdaa yi walis may ànd ak say noon mooy ñi la weddi bil bi ci barkeb suratu al sap yàlla dama bëgg waxtu ne ñi nga xam ne dañ laa gëm nekk say soppe nga soppal leen sa bopp ñooñee nañuy doon sama àndandoor fu ma jëm rek ñooñee naa doon koo xamee ne dama leen di bégee ñi may bégee waaye al ahda ñi nga xam ne dañ laa widd bañ laa jaamu weddi xéwal yi nga leen defal yàlla musul ma mooy ànd ak ñooñee kon sëñ bi ñi mu bëgg ànd ak mooy soppeeku yàlla ñi gëm yàlla waaye ñi nga xam ne bëggut ànd ak ñoom mooy ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla moo tax mu ne ko wal tux nii nii nag ma doyluloo bi suxbatil ahbaab ci may ànd ak say soppe soppe yàlla mooy ñi gëm yàlla an suxbatil ahdaay walis may àndanteeg say noon noonu yàlla yi mooy ñi ko weddi lépp maa ngi la bil laxsaabi ci barkeb sar yi nga xam ne moom la ñuy wax sóoratu laxsaab al ansaab mooy firi ay kuréel dafay nettal rek xaswatu bi nga xamee ne xare bu siwoon la muy xaswatul xandax xare bu siw la waaye histoire bu gudd la waaye yàlla mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamee ne dañ koo gëm ne yaa ayyuhal lazina amanu skuru nixmatallahi alaykum is jaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana la bima ta'malun basiran bi nga xamee waa Màkki def nañ ay kuréelu kuréel kuréel yu bari ñëw nar gaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina bett ko fa moo ay saxaabam ñu ko gëm fàggagal leen yàlla dimbale leen su ko defee nag moom ngeen dégg ñaan xaswatul xandax mooy tabaarakallaahu gas giñ gasoon li wër Madina gas ko mu nekk ay kamb yu xóot ga xamee ne yéefee ñi suñ waree seen fas suñ ñëwee duñ mën a jégg kàmb yi xisa bu gudd gudd la waaye li tax daal mu tudd suratu al ansab mooy xaswatul xandax boobee la fi borom subhaanahu wa taala di nettali bi nga xamee ne isjaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mooy bi ga xamee ne yéefiri màkk yi bàyyi ko nañ màkk di ñëw madina bam ko defee nag ñi gaw madina tabarakallahu ngir bëgg a faagaagal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi ba jullit ñu bëri sax dañoo defee moo tax nga dégg alquran wa isaaqati al absaaru wa balixati al qulubu al xanaajira wa tasunoona bilaay sunoona gaw goog ñu leen gawoon dikkee leen ci masrix ci wàllu masrix ak penku tabaarakallahu yàlla nee ne wa isaaqati al absaaru mooy mooy saqasati al absaaru xayratan wa daxsatan ñoom ñëpp ñu ngi mel ni ku gëlëm ba ko defee nag ngeen njorto ngeen njorto ne na laaha laa yansuru diinahu wa nabiyahu ñu defee ne yàlla moom du dimbale diinaam ji ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la yónnee ngir mu taxawal diina ji foofu nag nga dégg alquran hunaalika tuliyal mu'minuuna yàlla nee na xaswatu xandax boobee nag ci laa nattoo ñi gëm muy jullit ñi gëm yonent bi wa sulsiloo silsaalan sadiidan dama leen nattu ba ma ko defee nag ba ma nattoo ñi gëm fekk ci ñoom amuñ benn kattan ci mën a toggale ba jekku seeni noon ñi commencé na di baj baji ànd koog tiit ragal bam ko defee yàlla nag ci laa leeral ki gëm ak ki nga xam ne naafiq la ci lañ xàmmee naafiq yi ak ñi nga xam ne dañoo gëm wa sulsiloo silsaalan sadiidan wa is yaqulul munaafiqoona suñ borom ne fàttalikul ba naafiq yi di wax ngir seen imaan gu lompañ ak seen bëri giñ bëri sik sàkk mu ne fàttalikul ba naafiq yi di wax wala si na fi xulubi mardun ña nga xamee ne seen xol ya feebar rek moo ci nekk ak imaan gu lompañ ñu ne maa wa'adana Allahu wa rasuluhu ilaa qururan ñu ne yàlla kat waxuñ ñu woon lii yàlla kat digguñ ñu woon lii yàlla kat digguñ ñu woon lii waxuñ ñu woon lii lam ñu waxoon mooy ñooy gañe maa wa'adana Allahu wa rasuluhu min nasrin alaa aduwwinaa wa tamkiin lanaa fil ardi ilaa baatilan ñu ne yàlla daal lim ñu dëxaloon daal tabaarakallaa fondement bi dafa mel ni rek dëgërut dafa mel ni dëgërut loolu naafiq rek moo ñoy wax loolu ab jullit moom lu mu gis rek mu tukkee ci borom day defe ne rek lii rek yàlla bee ko waaye du defe ne ci keneen la bee waaye comme ni ma la ko waxoon naafiq moom dafa tàppet lépp lu jog rek buy dal ci kawam day defe ne keneen moo ko ko teg dégg nga wala moo ko teg boppam wala nangam waaye du defe ne ci yàlla ko loolu yëpp la ko waral mooy kon daal baatab al ansaab ñëw na ci saar wi yaxsiboona al ansaaba lam yasaabu wa in yaati al ansaab ñëw na foofu ñaari yoon ñëwaat na ba tey fi muy mujjee nettali xisa bi wala maara al muminoon al ansaab qaalu haasa maa waadana allah wa rasuluhu wa saddaqa allahu wa rasuluhu wa ma saadahumoo ila imaanan wa tasliman kon daal al ansab mooy kuréel yi nga xam ne ñoo béykoon màkk ci ay musrikoon yi ñëw daje kuréel bi nga xam ne mooy kuréel yonente sallallahu alayhi wasallam dégg nga ba nga ba ñëwee nag gaaw madinatu munawwara ngir bëgg a faagaagal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay saxaabaam xaswa boobu moom la ñuy wax xaswatul xandax waaye du tey yàlla jàppale na yonente bi bam bam duma leen bam dume ay noonam tabaarakallahu yokku pasteef ak yàlla gu mat sëkk ñi nga xam ne ñoo gëmal yonente bi sallallahu alayhi waaye xamee nañ ci xare boobu ñi doon naafiq nekkoon ci kuréelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ay naafiq lañ xamee nañ leen ca waaye xamee nañ ca ña nga xamee ne ñoom de ca dëgg-dëgg ay julit lañ kon ànd ak ku baax rek am solo kon sëñ boo gisee munaasaba bi li ma ci commenté rek nettali xës bi waxoon naa la taxul maa jóg waaye li tax sëñ bi ne wal tux ni nii bi soxbatil ahbaab yi ndax léeg-léeg nga jàpp ne kii sa soppi la fekk naafiq la bu méttee mu daw waaw bu méttee mu daw ndax yonent bi sallallahu alayhi bi waa Màkk yi defee ay délégation ñu bëgg koo faagaagal naafiq yi nekkoon ci biiram dañoo dañoo waxoon dañoo gëm yonent bi waaye bi nga xamee ne gis nañ kuréel bu bëri bi rek ñu commencé tiit commencé jaaxle wasul si loolu sirtaalan sadiidan foofu nag yàlla nattu leen dégg nga kon nag gis nga yonent dafa àndatoon ñoo xam ne dëgguñ ay noon lañ te saa bi ñu ngi def ne ñii kat ci ñun lañ bokk ay soppe lañ ci ñun te fekk seen noon lañ moo tax sëñ bi nag mun naa soo boobu nga xam ne naafiq ñoo jax santoo nag ñi nga xam ne ñooy moo tax sëñ bi nag ne wal tux nii nang ma doylu loon bi soxbatil axbaay ma ànd ak say soppe xan soxbatil axdaay walis di ànd say noon bil ansaab bi ci barkeb surtout ansaab ndax léeg-léeg nga defe ne diw soo soppe la fekk sam noonu la yàlla ñu ci yàlla lax yàlla nga feesal del fu aadee sama xol wakun yàlla na nga nekk mun na bi i doon ku may solo bi naa fi an elmi gën kaa jëriñe ci xam-xam yi bi àqi sa bi ci barkeb surtout saba yi yàlla sama xol nang ko feesal tepp ak leer ak xam waaye nag xam-xam yi gën a jëriñe yi ëpp njëriñ nang ma koy sol di ma ko xibaar muy dugg ci sama biir xol ba fees ca dell al munabi boo ko déggee mooy koo xam ne dañ ko xibaar loo xam ne lu raar la waaw xibaar bu rëy lañ koy wax moo tax ma ne yàlla na nga feesal sama xol tepp ci xeeti xam-xam ak leer waaye nag nang may solo ci sama biir xat ci sama biir xol di ma ci xamal xeeti xam-xam yoo xam ne kenn du ko jàng fenn wam lax yàlla na nga feesal tepp foo aadee sama xol boo kon yàlla na nga nekk munabi doon ku may solo binaafiaan binaafilaan mi ci gën kaa jëriñi ci xeeti xam-xam yi bi xaqi saba yi ci barke suratu saba yi suratul saba ba tey yàlla dafay nettali li tax ñu tuddee ko suratu saba yi dafay nettali xisa bi ci biir saar wi moom nga jàng defe naa ne ci aaya fukk ak juróom mu ne laqad kaana li saba yi fii masaakinihum aayatun janataani an yaminin wa simaalin ñi ne leen min risqi rabbikum waskuru lahu baldatun tayyiba yàlla nettal dëkk bi nam neexoon wa rabbun xafurun waaye nag fa anhradu fa arsalna alayhim saylal arimi wa badalnaahum bi janatayhim janatayni sawaatay ukulin xamtin wa aslin wa sayin min sidrin xalilin yàlla nag ne saalika jasaynaahum bimaa kafaroo rek waxal nujaasa ilal kafuuru en ah kay yàlla nee ne réewam sëb yi nag qabilatan bil yaman la ab giir la ab famille boo xam ne dañoo nekkoon ca Yaman su ko defee nag summoo bismi jaddihim da maanaam li ñu leen tuddee mooy seen turu maam doo dégg ñaale seen maam moo tuddoon sëbëy ñi far nag ab famille su ko defee nag ñi jël seen turu tuddee leen ko moo tax nga dégg ñu laxat kaana laxat kaana li sëbëy alxuraan wax na ko kon ab giir la boo xam ne dañ leen di woowee sëbëy mooy seen nag alxuraan ay nettali dañoo dëkkoon ci dëkkuwaay bu neex dëkk ba doo fa gis weñ-weñ du la matt masalan amul yoo booy tukki booy ñëw amul indi yóbbal ndax li ngay indi yóbbal mi ngi ci biir dëkk bi dëkk bi lépp neex naat lépp lu waay duuti rek bu neexee doo génn dëkk bi ñoom nag ñi mujj beew seen tool yi rafet ya seen pom ya seen noon nga koy toppee xeeti raisin lu ne am na ci dëkk bi loo xalaat lu ñuy lekk di ko jëfandikoo rek mu ngi ci biir dëkk bi. xam nga li leen gis koo xam ne dafay dund ci xéwal te xamul li ko may bu yàggee na mën naa beew wala mu réeréelu ñoom ñu mujj beew na ko yàlla bëggatuñ lii lii nga ñu defal ah bëggatuñ lii nga ñu defal xam nga loolu loolu mooy wii di xéwlug yàlla dëgg dëgg dëgg moo ngi digal Alxuraan laqad kaana li sabii fii masaakinihim aayatun mu ne xoolal kawte fi ngi nii waa sabii seen biir dëkkuwaay ya nee na dañoo amoon ñaari tool ñaari piscine xan yamiinin wa simaalin ndeyjoor ak càmmooy foo xool rek tool la tool yu rafet ci seen biir dëkk ya sun borom di leen ñaax naan leen kuloo min rizqi rabbikum lii man yàlla maa len ko jox lekk leen ko yéena ko moom waaye nag leen rek laa ne di digal su ngeen bëggee xéwal gi bu ngeen ko bu ngeen ko mën a yeew ba du rëcc len rek la mooy waskuroo lahu na ngeen sant man yàlla mi leen jox xéwal gi yàlla di nettal na dëkk bi nu meloon mu ne baldatun tayyibatun yàlla nee na dëkk la boo xam ne suuf si dafa nooy jaww ji teey te neex baldatun mooy tayyibatun mooy karimatu turbati tayyibatul hawaa yi am dëkk yoo xam ne jaww ji day neex nga xam ne dafay neex a dalloo yàlla nee na nag ñaari tool a fa nekkoon yoo xam ne joor a càmmooñ foo xoolee tool yi tool yi dañoo rafet man yàlla ma digal leen nag ñi sant yàlla leen dëkk la woon bu neex waaye nag war a bun xafurun ak borom boo xam ne jéeglaakoon la. waaye nag ba mu ba yàgg nag fa ëhrëdoo yàlla nee ne ñi bañ a sant xéewal gi ma leen digal ba nag yemuñ ca weddi yónent ba fa ëhrëdoo yàlla ne ne ci lañ dëddu nag bañ a sant yàlla ba ko defee ma jëflante ñoom mooy fa arsalnaa alayhim saylan arami ma yónni yolaange bu mag mu ñëw yàq tool ya yàq seen dëkk ya seen néeg yaag seen lépp daanu la leen ko yóbbee mooy ñàkk sant. moo tax yàlla ne ñaari tool fa nekkoon yoo xam ne boo xoolee ci ndeyjoor ak càmmooñ yëpp ndox mi du manqué pomme yeeg lépp mi ngi ci biir waaye nag bi ñu weddee wa badalnaahum bi jannatayhim bi jannatayhim dama leen wettee seen ñaari tool yu neex yooyu jannatayni yeneen ñaari tool sawaatu yu ukkulin xamtin tool yoo xam ne dañoo mujj ne weex xat boo lekkoon pom masalan pom bi day weex xat nga jël raisin mu weex xat te dafa safoon suukar kat wa asli sayin wa aslin wa sayin min sidirin qalilin yàlla neen dama koo def mu mel ni nguy si garab nguy si garab borom xam-xam garab la goo xam ne garab gu weex xat la lu ko lekk danga ko yàbbi xeeti garab yëpp moo tax borom xam-xam bu ñu koy misaal bu ci gën a weex dañ naan muy nguy si garab moom nag yombut xëy na boo demoon fu mel ni bawal ak yu mel noonu man na fa am waaye nee na yàlla nee na seen garab yooyu nga xam ne moo nekkoon ci dëkk ba naat lool meññ lool ñi di ko bànneexoo da ca lekk ak seen toole dama mujj soppi ko mu nekk meññeet yu xat nga xam ne ku ko lekk rek mën nga wëccu la ko yóbbee mooy ñàkk sant yàlla ñàkk sant yàlla yàlla ñu ci yàlla kon li muy jàngale mooy xéewal kuñ ko jox buum gi ko mën a yeewee ba mu dëgër ba dura ci mooy nga sant yàlla kon waa sëb yi ñoom li taxoon xéewal ga leen yàlla joxoon yàlla nee na leen sant leen ma ca dafa bëggoon xéewal gi bu mu ci ñoom ñoom nag ñu far wii di yàlla bañ a sant yàlla yàlla jël xéewal ga soppee leen ko mbugal kon ñoom ci neex-neex ci lañ njëkk mais nag bi nga xamee ne santuñ yàlla yàlla dafa wàcc seen kaw mbugal moo tax sëriñ bi nag ne wam la fu aadiya wakun mun na bi i binaa fi al mi bi àq sa bayi yàlla sama xol daal nang koy feesal tepp ci sag leer ak sa xam-xam waaye nang may solo gën kaa jëriñ ci xeet xam-xam yi ndax ñii ñëpp amoon nañ xam-xam réew sa bi xam-xam ba dañ ko jëriñoowut xam-xam ba jëfandikoowuñ ko xam-xam ba santuñ ci yàlla te xeeti xam-xam jumtuwaay yu adduna yëpp mi ngi woon ci dëkk ba xeeti xam-xam yëpp mi ngi ci dëkk ba jumtuwaay yëpp mu ngi ci dëkk ba kon ñooñ soxlaatuñ dara dëkk ba naaj du la tàng yoo du la mat weñ du dal sa kaw ngir jaaw ju neex amul wantu loo amul dara ñi mujj nag wéeti xéwlu yàlla moo tax sëñ sama xol na ko feesal tepp dégg nga waaye itam nag may solo xam-xam yi ci gënal jëriñe ci barke suurtu Sabé mu ne wa bi yàlla na nga dàq daal di ëdduna ko alaxira anniye mu sërima alxasan lépp luy njàqare xol bi faatirin ci barke suuratul faatiri wa yàlla nag ma sëril alfitan lépp luy fitna mu sërima yow sun borom maa ngi lay ñaan ëdduna lépp lu fiy njàqare yàlla nag ma ci musal ci barke suuratul faatiri waaye lépp luy fitna ba tey te mu nekk ci biir kër gii di ëdduna ak alaxira yàlla lépp rek na mu ci musal. ba tey mun naa suubab li sëñ bi wax ñaan ñaan yàlla na ko damaa bëgg nga musal ma ci fitna ak njàqare. mi ngi junj ci biir saar yi aayey fanweer ak ñeent. danga jàng suñu borom bi mu waxtaanee mbiram aljana ak neexir yaak ak ña fay dugg ñëpp. dane waqaalu alhamdulillahi allati ashaba ana alxasana inna rabbana la xafurun sakurun yàlla nañ ci bokk mu ne jullit ñi suñ tàbbee aljana gannaaw buñ duggee ba noppi dañuy wax cant ñeel na yàlla mi ñuy dëñalal lépp luy njàqare lépp luñ doon ragal yàlla teggil nañu ko musal nañu safara ak yoon yi ci jëm sunu borom dal jiggalaakoon la bàkkaarab képp koo xamee ne tuub na dellu ci moom ci ay jaamam waaye santaakoon la seen topp yi ñu koy topp di ko jaamu. kon nag baatam njàqare boobu moom la sëriñ bi di junj ci biir xasida gi moo tax mu ñaan ci barkeeb saar wi di li tax ñu tuddee ko faatiri mooy ci njëlbéenu benn ji rek ci la ko tudd alhamdulilahi faatiri maanaam bind gi bind asamaan suuf bind gim mu bind malaayka benn bu ci nekk mu am lam canam namu moom nag dafa bokk ci saar yi nga xam mooy alhamdulilah dañoo tàmbali alhamdulilah moog sóoratu saba yi ak lu mel ni sóoratul kahfi ak lu mel ni sóoratul euh, lanham ñoom saar yooyu dañoo tàmbali alhamdulilah kon faatiri dafa tàmbali alhamdulilah faatiri samawaati wal ardi cant ñeel na yàlla mooy kan mooy ki bind asamaan yi mooy ki bind suuf yu mel noonu loolu lay nekk ci biir saar wi waaye munaasaba bi ci sëriñ bi def nga xam ne dafa ñaan suñu borom musal ko ci lépp luy xeeti njàqare ak na sëril ko ko loolu nag mi ngi junj rek wa qaalu alhamdulillahi lasi asaba ana alxasana inna rabbana la xafurun sakurun kon moo tax sëriñ bi nag ne wa asibi yàlla na nga dàq daari ne ëdduna ko àllaaxira mu sëri ma alasan lépp luy njàqare bi faatirin ci barke faatiri faatiri mooy yàlla mi bindi ki bind lépp te ko fenn wajani ba ne yàlla nag ma soril alfitan lépp luy fitna. bi àq yaasin maa ngi la ñaan ci barkeb yaasin ik fi nii nag ma fegal at daareeni adduna ak alaxira maa laa loo xam ne déet ma koy bëgg. wa sax si yàlla na nga sëril say nii sama ñaaw-ñaaw. yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb suratu ay yaasin nag ma musal ci adduna ak alaxira lu ma bëggut ci adduna rek dàqal ma ko. lépp loo xam ne dañ naan lii man borom Tuubaa bëgguma ko ci adduna rek yàlla dàqal ma ko ci barkeb yaasin suratu yaasin. waaye lépp loo xam lii su ñëwee ci nit ki mën na ñaawal dafay ñaawal nit ki maanaam du jox taar nit ki moo xam ci alalam moo xam ci jëmmam lu mën a doon rek ci xeeti ñaaw-ñaaw mu ne yàlla ko mu sori ma waaye lépp loo xam ne bëgguma ko àdduna ak alaxira wala lépp luy ñaw ñaw rek yàlla daqal ma ko ci barkeb suratu yaasin suratu yaasin borom xam-xam yi nee nañ ci tur yonent bi sallallahu alayhi ci la bokk am na ñu ne mooy yaa sayyidil basar am na ñu ne mooy siru yàlla rek e siru yàlla bi innaka la minal mursalina ala siratin mustaqimin yaasin ñi ne da ko woo na ko yaasin ee yow siru yàlla bi innaka la minal mursalina yow kat ci ñi ma yónni ci nga bokk am ñu ne déedéet yaasin li mu firi mooy ay yaa sayidil basar mooy koo xam ne sangu mi def am na ñu ne déedéet ay ay mooy ee yow waaja waaye lu ci mantukaanta borom xam-xam yi taayoon nañ ci lu bari waaye daal ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bokk ci tur yonent bi sallallahu alayhi ci la bokk moo tax sëriñ bi nag ñaan na ko yàlla damaa bëgg nag lépp lu ma bëggul rek ci adduna ak alaxira yàlla musal ma ci ba bu mu jublu bu mu ko jublu waaye yàlla nag ma dàqal lépp loo xam ne xeeti ñaaw ñaalu bu sëriñ moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ne moom mooy qalbul alquran ni nga xamee ne xool li mu amee solo ci jëmm noonu la alquran yëpp boo leen dajalee xool ba dëgg-dëgg mooy yaasin daa moom bépp aajo bu waay am rek soo ko jàngee ngir aajo ba aajo ba daal di faju aajo bu mën di doon rek yonent bi nee ne moom lii maa xuri àlla loo ko jàng rek yaasin mën na koo faj ndax saar yu lépp booy xool li muy nettali li nga xam ne ab julit bëgg na ko ak li nga xamee ne moom lay bañ saar yu yëpp loo lay nettali ay xëy xéwal boo xom mbiram aljana wala mbiram safara moo tax sëriñ bi yàlla maa ngi ñaan ci barke bi fegal ma àdduna ak àllaaxira lépp lu ma dul bëgg waaye na nga samay ñaaw ñaaw mu sori ma. wasafi yàlla na nga sellal xalbiya sama xol wasit yàlla na nga dolli yaqini sama wuulu gi ma la wuulu wal taqini yàlla nag ma fegal araji ma kañu jam ka muy iblis laxnatullahi ali kañu jam wali séer nang ma ko fegal mu sori ma bil yaqatini ci barkeb saar yi di yaqatiin yàlla sama xol bu am benn nëx-nëx bu ci dugg. na set wicc sell wicc set wicc ba dara du ko tilimal waaye yëqiin gi ma am nanga ko dolli ndax xool su setee rek yëqiin gi di gën a dollee ko waaye nit ki xolam mëntu tilim mu am yëqiin faw bala nga am yëqiin sa xool moom day set moo tax sëriñ bi yàlla nga sellal sama xol te dolli sama yëqiin mooy wóolu gi ma la wóolu bis bu ne nay gën di dëgër waaye bu mu gën di yoxam am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu wóolu yàlla waaye léeg-léeg duñ ko wolu kat yàlla nañ ci yàlla musal yàlla danga ko wóolu wóolu ci sa bopp wóolu sa waaye wóolu yàlla ci luy ñëw moo xam la muy tëkku la wala la muy dëxle na lépp dang ko gis lépp dang teg sa bët bu dee la ñuy tëkku la nga nekk ca da nga ca teg sa bët da nga fa tàbbi te mooy safara wala yaasu bilaa bu dee lu ñuy digg la te nga nekk ca di jëf-jëf ju baax da ko gis ci aljana yàlla nañ ca bokk kon yàlla na nga dolli sama yëqin waaye musal ma ci iblis mi nga xam ne da nga koo dàq muuli si yërmande ci barkeb suuratul yàqatiin ba tey tuddee nañ ko sortu yàqatiin ngir dafa rot ci biir baatab yàqatiin yàqatiin mooy mooy mooy firi ak naajo garabu naajo mooy fi alxuraan di waxee ci wa anbatna alayhi sajaratan min yàqatiin mi ngi wax ci xisatu yonent yàlla yunusa bi baare nitam ñi ñu lànk ne duñ ko gëm mu gàddaay nag dem dugg ca gaal ga tabaarakallaahu ànd ak tukkikat ya na daf le dafay gàddaay daal moom daal ci misaal daal gedd na bàyyi leen fa comme moom waar moo ko fi indoon waar na leen ñu bañ taa bi yónentu wartu gàddaay te amut ci ndiglu boromam. noonu ngay toppee xisa bi ba jën yu wan ko ba yàlla yenkiwal ko na ko waxal laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minaz zaalimiin ba mu defee nag jën wi dam géq ko ca tefesu géej ga yàlla nag yebal fa ab garabug naajo mu sax fa di ko keral ngir bu ko dara lor ndax ku nekk ci biir jën bu la jën géqee dindi la faw da nga tooy ba wutu da am ay xeetu lor-lor rawatina buñ la bàyyee noonu su ko defee nag yàlla digal ab garabu naaja mu jëw law ci peggam di ko keral. root googu nga xam ne moom la baat bi root nag ci aaye 146 wa anbatna ali sajaratan min yaqatinin googu nag yaqatin boobu moo tax nag ñi tuddee baat bi baat bi baatab yaqatin bi ci root ñi tuddee ko saar yi danañ ko wax sóorutu saafaati danañ ko wax sóorutul yaqatin waaye yaqatin mooy garabu naaja googu nga xam ne moom la yàlla santon su ko defee nag mu law ci peggam di ko keral ngir bu ko dara lor ndax mu mën a féex moo tax sëñ bi nag ñaan yow yàlla gannaaw boo selalee sama xol dolli sama yiqin nag ma fegal iblis ndax loolu Yunus sa defoon pexam iblis rek la muy waar say nit ba noppi nag kenn gëmut la nga bëgg a gàddaay nag te amu ci diglu sa te da nga cee waroon am diglu sa borom loolu pexam iblis la. moo tax sëriñ bi mu naa sama nag moo tax ma ne wël tëqani rajima yow yàlla nag ma fegal iblis ma nga xam ne dañ koo daq mu li si yërmande ci barkeb suurtu yàqatiin wajal yàlla na def xooloo mi samay xam-xam wa wusooli ak sama jokk fis diyaat mu nekk ci ak dolleeku wa amali ak sama jëfee ga wa adabi ak sama teggin bi xaq saat ci barkeb suurtu saat yàlla samay xam-xam yi nekk ci man moo xam sariya la xam-xamu fiq la wala tasuf wala tawxiid walla jokk gi ma jokk ci yow lépp nay dolleeku jëfe gi may jëfee xam-xam ba wala teggin ya yam àndat yëpp nay dolleeku yëpp dafa bëgg rek lim fi ñaan mooy muy dolleeku xam-xam kenn mëntu am lépp kenn mëntu peeg lépp kon koo xam ne mënoo peeg lépp waxtu ne da ngay ñaan yàlla mu dollil la. naka noonu ku jokk ci dara ngir bëgg a xàgg fa nga jëm faaw ngay ñaan yàlla jokk gi di gën di dëgër ki am xam-xam di ko jëfee faw ngay ñaan yàlla jëfee gi di gën di sax di wëy di dolleeku ku am adab faaw ngay ñaan yàlla muy gën di dolleeku ndax yii yëpp mbir la yuy dolleeku moo tax ma ne wàccal yàlla nga def xooloo mi samay xam-xam wa wusooli ak sama jokk jokku di diyaar mu nekk ci dolleeku wa amali ak sama jëfee gi ba tey mu nekk ci dolleeku wa adab bi ak sama teggin ba tey mu nekk ci dolleeku bi ak saar ci barkeb suurtu sóoratu saat dafa bokk ci alxurufu almu almuqattaha maanaam min alxurufi almuqattaha ca la bokk yàlla daf ne saat wal quraan dafa ubbee leetar bi nga xamee ne dafa wet nga xamee ne nekkul ñaari leetar ndax dafa am ci alquran bi yàlla di ubbee saar yi am na yoo xam ne juróom la code bi juróom leetar lay doon lu mel ne kaafa yaa ayn am yoo xam ne lu mel ni ñeent am yoo xam ne ñett am yoo xam ne ñaar am yoo benn saat nag moom benn la borom xam ne dañ koy firee mooy yàlla xam lam ca xam lam ca daal bi mu waxee saat dafa gëñ dane wal quraani si sikri maa ngi gëñ ci alquran ji xam ne dafa lambo waar nit ñi di leen xamal lu leen di jëriñ ci aduna ak seen alaxira bokkut ak ni bokkaalekat yi noonu lañ ko njortoo moo tax na ñuy bokkaale di ànd ak yàlla leneen lu bokkut ak yàlla baax moo tax nag mu ne saat wal qur'aani si sikiri si sikiri mooy al mustamil ala taskiri naasi bima hum hanhu qaafiluuna boo déggee waar nit ki di ko fàttali mooy li muy sàggane nga war ko ca fàttaliku ko su ko defee mu dellu ci mu ne waaye bali la si na kafaroo fi ansitin wa si xaq ñi xam dañu widd yàlla ñi ngi nekk ci rëy rëylu bañ a wéetal yàlla ba noppi nag wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi noonu ak yonent bi naan dañuy jaar ak ñoom dañuy jaar ak yonent bi anzatin mooy takaburin wa amiyatin siqaqin mooy muxaalifatin wa inaadin gaa yi weddi yàlla dañoo nekk ci réeréelu ak jommu jommulu bañu a wéetal yàlla waaye itam ba noppi wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi ci bañ koo topp ba noppi nag noonu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daal saat tabarakallahu baat la boo xam ne moom lañ tuddee saar yi waaye nag rotul ci biir saar yi comme ni nga gisee ci yeneen saar yi baat ba ñuy tuddee saar wa xëy na mu rot ci biir saar wi ay yoon waaye dafa bokk ci minal hurufil muqatta'a am ñu ne li muy junj daal mooy bépp tur yàlla wu tàmbalee saad rek lu mel ni samadu loolu lay junji am ñu ne déedéet bépp tur yàlla wu tàmbalee saat dégg nga wala bépp turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wu tàmbalee saat rek moom lay junji sallallahu alayhi wasallam waaye daal sëriñ bi ñaan na ne yow yàlla samay xam-xam ak sama jokk gi ma jokk ci yow ak sama jëfee gi ak sama teggin yi yëpp nay dooleeku ci barkeb li nga xam ne moo di sóoratu saat ndax booy xool li muy jàngale yëpp bokk na ci muy xam-xam ak solo sa ak jokk ci ku baax ak am xam-xam ak jëfee ko ak teggin yi caaju li ëpp ci saar yi loolu lay nettali ci xisa ña muy nettali ku mel ni Suleymaan ku mel ni Daawuda ku mel ni ñu caaju yëpp lii la leen yàlla si doon lii la yàlla joxoon. bi sumari maa ngi lay ñaan ci barkeb suurtu sumari ur suxnee nag ma wërsëgalee diinan diine joo xam ne xaalisaat yu sel la wa kamilan yàlla na nga matal maa la nga xamee ne kaana nekk na mi nii ci man naaqisaa di aji manki yàlla nag ma wërsëgalee ci barkeb suurtu sumari ma am diine joo xam ne ju sell gis nga ko wax nañ ne sax moom sëriñ bi saaram moo daan suurtu moo doon suurtu sumari booy xool sax li muy aayam yi moom la dund juróom-ñaar fukki at ak juróom moo tax alquran kenn ku ne am nga saar ci alquran sëñ Tuubaa danaan wax na sama saar mooy suratu sumuri suratu sumuri moo tax boo demee ca taysir ba bi mu yeggee ci sumuri ca taysiru asir ba wasafi umri la wax na nga sellal sama dund kon am na lu muy junji te yeneen saar yëpp ñaanal ci loolu kat foofu nag bi mu fi yeggee bi muy tawsul ci suratu sumuri ba dane na nga sellal sama dund yow yow yàlla bi aji tedd ji nga na nga teral sama dund waaye yow yàlla na nga sellal sama dund safi wa karim yaa karimu umri fii mu ne yow sunu borom nang ma wërsëgalee diina ju sell ndax booy jàng saar saar wi di sumari man nga ne rek ci njëlbeen gi loolu danga ko ci jàng mooy yàlla day wane ne diina ji nga xam ne moom la jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam diina la joo xam ne diina la joo xam ne xaalisan la max naa dara raxut ko dafa sell wit amul lenn loo xam ne kooj na ko moo tax nag sëñ bi du junj maanaa boobu ndax yàlla dane ala lillahi diinul xaalisu yàlla daal moom la ñexal moy diinu ju sell ji ak diinul xaalisu mooy attaatu taama assaalimatu min assirki diinu joo xam ne soo ko toppee da mucc ci gépp bokkaale moo tax bi yàlla hubbee saar wi ne bismillahi rahmaani rahim tansilul kitaab minallahi téere bi kat ak wàccam mi ngi tukkee ci yàlla mi nga xamee ne moo not lépp te moom dara du ko not ina ansalna ilaykal kitaab ñun yàlla ñoo wàcc ci yow yonent bi alquran bil haqqi fahbudillaha muxlisan lahu diin alquran ji ñuy wàcc dafa ñëw ba tey di xabaar lépp loo xamee ne jiitu woon na fi ci ay xisa dafa ñëw itam di xabaar di la xabaar loo xam ne dëgg la waaye ak i xàtteem yépp dëgg la da koo teg ci ak mandu ak jub kon nag na nga jaamu yàlla di ko wéetal di ko sellal te bañ koo bokkaale ak kenn ak dara muxlisan lahu diina mooy mu wahidan loolu ibadata wa taata na nga wéetal yàlla yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nga wéetal yàlla waaye di ko topp mu ne ko nag ala lillahi diinul xaalisu diina yàlla jii kat diina la goo xam ne dafa mucc ci gépp bokkaale mooy diina ju sell diina ju sell boobu de mooy diina joo xam ne amul bokkaale mu ne ko nag wala siina itaqasoo min dooni awliya ma nahbuduhum ila li yuqribuna ila lay ñi nga xam ne dañuy jaamu lu bokkut ak yàlla def ko ay xarit lu mel ni ay xërëm ñi di ko jaamu bàyyi yàlla bañ koo jaamu ah nañu xam ne loolu ñuy jaamu kat daf leen di sëril yàlla du du tax mukk ñu jege yàlla ma nahbuduhum ila li yuqribuna ila llahi sulfa waaye nañu xam ne ina laa yanku baynahum fi ma fi fi yaxtalifoona bu yawmal qiyaama yàlla dañ leen dajale kenn ku nekk ci ñoom ak lañ doon jaamu su ko defee xàtt seen diggante lañ doon wuuteeg yëpp yàlla da leen ñoom ñëpp kenn ku ne ci ñoom yàlla dana la atti kon munaasaba boobu nag la ci sëriñ bi la ci sëriñ bi tawsul ndax comme yàlla day wax rek ci njëlbéenu saar gi ne diine jii dafa mucc ci bépp bokkaale diina ju sell la sëñ bi na yàlla maa ngi lay ñaan bi sumari ci barkib sumari ur suxnee wërsëgalee ma diinan diina xaalisan ju sella di ma xanaa man ma am ko diine ji moom sell na waaye yow nag mi nga xam ne yow liñ digal nga jaar ci diina da nga war a yàlla na ko may ma nag ma am diine ju sell la ndax ñi nekk ci diina bëri na waaye ndax yow mi nekk ci diina ndax yow am nga diina ju sell waaye diina ji moom dafa sell ok moo tax ma ne ko ursuux nee nag ma wërsëgalee diina diina xaalisan ju sell wa kamila na nga matal maa lépp loo xam ne kaana nekk na mi nii ci man naaqisaa di aji manqué am na ko xam ne mi ngi ci biir diina te fekk manqué leen lu bari dara matul loolu nag la fa ñaan yàlla dafa ñaan yàlla moom sëriñ bi sunu borom lépp loo xam ne dafa manqué ci man borom Tuubaa rek yàlla na ko matal nga xam ne dootul manqué ti na may diina joo xam ne ju sell la ma am ko muy taw tawhid gu sell wax fir yàlla na nga jégal sa sama bakkaar yu ndaw maal kabaayir yi ànd ak bakkaar yu mag ya wastur yàlla na nga suturaal ma oyoo sama samay ayib bi xaqi xaafiri ci barkeb xam nga bu suuratul xaafiri tuddee suuratul xaafiri te xaafiri mooy aji jégal ji sëñ bi ñëw na ko jégal ma sama bakkaar yu ndaw yi ak yu mag yi suturaal sama ayib xam nga ne dafa def munasaba rek dafa fekk lu saar yi di firi te tuuru yàlla la su ko defee nag mu sañ a ñaan yàlla na ko jéggal ma sama bàkkaar yu ndaw yi ak yu mag yi ndax bàkkaar yu ndaw yu mag ñoo am waaye itam suturaal ma sama ayib lu ma mës def ci ayib rek yàlla suturaal ma ba kenn du ko xam mooy jéggal ma ko kon gis nga ba tey munaasaba bi ma lay wax dégg nga li tax ñu tuddee ko xaafiri mooy bi mu tàmbale dana xaafiri san bi yàlla mooy jégale bàkkaar yi wa xaabili taw bi mooy kii nangu tuub ji jeex moo tax sëriñ bi yàlla nag ma jégal samay bàkkaar yu ndaw ak yu mag te toral ma sama ayib ba kenn bu mu ko xam ci barkeb suratul xaafiri waxab yàlla na nga may lee ñal ma idaamata tartili may saxal dàkk di tartil sa alquran ji di ko jàng kama amarta comme ni nga digile bii ci moom ñi di ko tartile bi tafsili ci barkeb saar yi ñuy tuddee tafsil ci turam yi la waaye ñi ngi ko gën a miin rek suratu fusilat fusilat ci arab mooy tafsil rek tafsil boo ko déggee mooy loo xam ne dañ koo leeral gën kaa mat muy alquran yàlla da koo leeral moo daal alquran bi mu wàccee rek la fireeku ndax su baat yi wàccu doon kenn du ko mën di kon bi baat yi nekkee arab rek ba ko yàlla wàccee rek ci la firiku kon alquran ko koy firi rek da ngay topp ndoor mais yàlla mi ko wàcce moo ko firil boppam. moo ko faram-fàccee bam leer nañ moo tax na ñi tuddee saar yi suratu Fusilat moo tax njëlbéenu ay ji rek ci lay wax waaye ci biir saar yi ba tey dana ci tuddaat walaw ja'alnaahu qur'aanan ajamiyyan la qaaloo lawlaa fusilat aayaatuhu ajamiyyun wa arabiyyun suñu borom ne suñu wàccoon alquran ji ci beneen langue bu bokkut ak arab suñ ko wàccoon ci beneen langue boo xam ne bokkut ak arab ko doon yéefiri danañ wax lu tax leeraluñ ay aayam ba ñu mën koo comprendre dégg nga konoon danañ ko wax waaye nag ci arab lañ ko wàcce suñ ko wàccoon ci beneen langue wu ñuy wax un jëmin yéefiri ci boobu ñoo njëkk a tax ne waaw yàlla lan moo tax leeraloo ko bañ mën koo comprendre. moo tax nag ñoom comme ay yéefir lañ te ay arab lañ yàlla wàcc ko seen biir su ko wàccoon feneen danañ wax lu tax leerlu ko ndax dégguñu ko wala comprendre ko. kon gis nga ko waaye li tax ñu tuddee ko fusilat mooy ci njëlbéenu aaya ji yàlla dafa dafa tijjee aaya ji tansilul mina rahmaani rahim alquran ji ak wàcceem ci yàlla ko dafa bëgg wax na rek alquran yàlla ko wàccee kenn jàngalul ko yonent yonent bi bindul ko jàngul jàngalul ko boppam kenn jàngalul ko ko ba tey kitaabun fusilat la fusilat mooy bayinat ayaatuhu wa wuddaxat maanihi mooy loo xam ne aayam yi dañ koo leeral maxaani yee te dañ koo leeral li muy firi dañ koo leeral yàllaa ko firi. téere la boo xam ne kitaabun fusilat ayat wa dañuy faram-fàcc ay ayam quraanan arabiyyan mu nekk alquran joo xam ne arab la arab la lu tax li qawmin ya'lamuuna dañoo bëgg nag nit ñi mën a xam maanaam yi rawatina nag fañ ko wàcce ñi nekk ay yéeféer rawatina fañ ko wàcce ñi nekk ay julit dañoo bëgg nag ñi xam maanaam yi ak li ci nekk ci ay hidaaya ilal haq li nga xam nekk na ci biir nga xam ne su ko nit ki toppee mu mën koo gindi jëmee ko ci dëgg moo tax yàlla leeral ko lëm ci jublu mooy li xaw mi ñu ya'lamuuna ngir aw nit ñi mën a xam li nekk ci téere bi ci ay xeeti maanaa ndax su ko wàcce woon ci beneen langue yéeféer yi ni ma la ko waxoon léegi dañ naan lu tax yàlla leeralul ko bañ mën ko comprendre waaye ba ko yàlla wàccee ci arab nag la leen yeey ok loolu nag mooy tafsil tafsil dafa bokk ci saara yi moo tax fii nag sëriñ bi lim saxal mooy tafsil waaye tafsil ak fusilat benn lañ lépp lu ñu wàcc alxuraan dañ ko wàcce yàlla da ko wàcce digal ñi jàng ko moo tax sëriñ bi nag gis nga mun naa sooy ba tey dafa wax ci biir saar yi moom suñu borom moo wàcce alxuraan dafa digle ñi jàng ko dafa faram-fàcce ay aayam faram-fàcce ay maanim bañ mën koo xam te lépp lu yàlla faram-fàcce ba mën koo xam lañ ca namm mooy ñi mën koo jàng ngir mën koo xam ñu nit kat moo tax sëriñ bi mun naa sooy boobu nag moo tax mu ne wax na nga may lii ñal ma idaamata tartil may saxal di tartil téere bi di ko jàng di seetantal ay maaniyam ak ak aayam yëpp kama amata comme ni nga digalee bii ci moom bi tafsili ci tafsil ci barkeb suratu tafsil suratu tafsil mooy wàcc gi yàlla wàcc alxuraan faram fàcc ay leeral maani ya mu ne yàlla na nga may nag may tartil ay alxuraan yi comme ni nga ko santaane fastamsik bi la ci uhya ilayka wa innaka ala sirati mustaqimin yàlla moo ne yonent bi li ma la wax yu na nga ci mooy dee ko jàng waaye itam na nga xam ne bu yowmal qiyaamee sama saw xeet danaa leen ko laaj danaa la ko laaj laaj ko saw xeet kon nag fastamsik bi li ci ooyi ilayka na nga jàppandu ci li ñuy wax jëmee ko ci yow wa innaka ala sirati ndax kat yow yaa nekk ci li ñuy tuddee ak dëgg yow yaa nekk ci li ñuy tuddee ak dëgg ko nag na xam ne danaa la ko laaj yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye danaa ko laaj saw xeet wa innahu la sikurun lakka wa li qawmika wa sawfa tusaluna mhm. kon wali yaab idamata tartili kama bi amartu bi tafsili bi sóoratil sóora maa ngi ñaan ci barkeb sóora ik fi nii nag ma fegal ixwa jaaja lépp loo xam ne aji dëng la aji jeng la xanil la si walis la nga xamee ne saraxtoxoo yoonal nga ko min xaaja ci yoon min xaaja ci ngir mu ne yàlla maa ngi yan ci barkeb suuratu soora nang ma fegal lépp loo xam ne yoon la wu wuuteeg sareexa gi nga rëdd la ko tàmbalee ca noo mi ngi ko njëkk a jox bam yeg yegsi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee ne mooy ki gën ñëpp gën a kawe ñëpp gën a tedd ñëpp mu lépp loo xam ne dafa jeng wali sariya nga xam ne bokkul ci sariya ku ko topp nekkul ci sariya génn nga sariya yàlla maa ngi lay ñaan musal ma ca moo bi suratu sora maa ngi lay ñaan ci barke suratu sora ik fii nag ma fegal ixwa jaaja lépp loo xam ne aji jéng la xandi la ci wëlis la nga xamee ne saraxtoo yaa ko yoonal min xaaja ci ngiir ngiir boo ko déggee mooy sariya ji nga xam ne dañ koo leeral bam leer nañ nga xamee ne amatuñ leneen luñ ci leeral ku ñëw rek da ngay yeesal li tax ñu tuddee ko soora mooy diisoo yàlla da ko wax ci biir saar yi si walasiina stajaabu li rabbihim wa aqaamoo salaata wa amruhum soora baynum mimaar sax naa yuntiqoona dafa am ay melokaan yu mu doon wax moom yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo wuyul seen borom dañoo nangul seen borom ci di def li leen yàlla digal di bàyyi lam leen tere ba noppi wa aqaamoo salaata ñi matal julli ci anam ba mu gën a rafetee wa amruhum soora te lu ñuy def rek ñi di ci diisoo seen mbir yi xam ne dañ koy yittoo ñi di ci diisoo di ci tàgguwante waaye nag wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna li leen yàlla jox ci wërsëg ñi di ko bokk ak nit ñi di ko dundalee ci yoonu yàlla ngir sàkku ci ngërëmal yàlla melokaan yooyu yàlla moom la doon nettali ci xeeti melokaan yooyu dafa bokk ci melokaan yi nga xamee ne ci la ñuy xamee dëgg-dëgg ab jullit waaye li tax ñu tuddee ko daal suratu sora mooy diisoo diisoo dafa baax moo xam kër gu ne dañoo war di diisoo moo xam doom lu muy dugg na ci diisoo woy juróom góor bal sax ba ci way jur góor dafa war di diisoo doom ju doom ju góor wala wu jigéen diisoo mooy waxtaan rek soppiwante xalaat yonent bi sallallahu salaam wasallam mooy sangi ñëpp yàlla ne na ko del diisoo wa amrum soora fii moom mi ngi ci namm ñëpp saxaaba yeeg ñëpp waaye jànga mu ne ko wasaawirhum fil amri te yu xasam ta xare lu muy for for sax yonent bi sañutu dem xare woo saawee nañ leen dem daf laan diisoog ñoom ku bëgg a dem dem ku bëggul dem toog yu mel noonu daf ci daan diisoog ñoom kon yonent bi ki yàlla digal na ko del diisoo te yonent bi suko ko neexoon lépp lu muy def rek jiitu na nañ leen dem force waaye déedéet yàlla ne ko del diisoo waaye saxaabi itam ñuy diisoo moo tax diso sax sax na ci sunna yonent bi ne ne nit lu muy dugg lu ne rek war na caa diisoo ku ko def rek doo am gàcc te itam doo perte nee na te itam doo sooy sallallahu alayhi wasallam nit nit ki lu muy dugg yonent war naa def al istiqaara muy seetlu ko mooy nag istiqaara ci sunna ni ko yonent bi jàngalee waaye itam lépp lu muy def ba tey war na caa diisoo ñaar yi moom dénkaat na ko ci sunna muy istiqaara looy dugg rek moo xam kër ga ngay sanc wala pàkk ba nga bëgg wala oto nga bëgg nga def ci al al istiqaara ba xam gën na ci yaw wala gënul ci yow tànnaloo yàlla lu la ci yàlla xamal rek nga xamee ne loolaa gën dégg nga waaye li ñu wax nag diisoo looy dugg rek nga fex nag diisoo ci ak koo mën a doon waaye mun naa sabab bi def ci ñaan gi dafay junji saraan lakum mina diin yàlla nee na maa yoonal diine ji yoon yi maa ko xàll waaye nag dafa am ci loxo ñu mu ko tëral ñu ne ko kooko jox mu ne maa wasaa bihi nooxan ki ko njëkk a jox noo moom jotal na jëf na wala si awxaynaa ilayka wa maa wasaynaa bihi ibrahim jox nañ ko Ibrahima woo Moussa wa Isa kenn ku nekk jotal na jëf na jëf ju mucc waaye ñoom ñëpp wa Isa moom it jotal na jëf na lan la leen yàlla wax ana aqimu diin fexe leen ba daanu rek na ngeen taxool diina te bàyyi tàqalikoo te bàyyi tàqalikoo bu leen teqalikoo mukk ndax diina ñu koy defar dañuy ànd moo tax kenn mëntu defar diina lu dul nga ànd yàlla ne ana qiimu diina na ngeen taxawal diina wala tattafaraqu fihi bu leen taxaliko mukk na ngeen nekk benn kon bala ngaa mën a taxawal diina dafay fekk nag nga ànd ak ñooñ diina yàlla nee na kabura alal musrikina rëy na màgg na bon na ci bokkaalekat yàlla yi li nga xam ne ñu ngi koy woote woo bàyyi jaamu yàlla di jaamu keneen ku bokkut ak yàlla mu ne loolu lu rëy la bakkaar bu rëy la bakkaar bu màgg-màgg la kabura alal musrikina maa tad'uuhum ilayhi te allahu allahu yajtabi ilayhi man yasaaw musrikoon lu leen neex na man la man la man la te doonuñ dara te allahu yajtabi ilayhi man yasaaw yàlla mooy tànn ku ko neex jëmee ko ci moom wa yahdi ilayhi man yu yunibu ku na ma dellu ci yàlla moo lay gindi pour walla yoon wi kon nag munaasoo boobu nag moo tax nga dégg sëriñ bi ne yow suñu ci barkeb suuratu Shuura nag ma musal ci lépp loo xam ne dafa jeng dafa wuuteeg sariya ndax alminhaj moo yoon woo xam ne leer na nañ xaala nañ ko moo tax sëñ bi ne bi sootu sura may la ñaan ci barke ma loo xam ne aji jeng la andi la ci walis la nga ne saraxtoo yow yàlla ci boppam yaa ko yoonal min xaajaa ngiram muy yoon wa yoon wi nga xam ne yàlla ko xala daal lépp loo xam ne dafa maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci barkeb sootu sura kon munaasaba bopp nga xam ne mooy saraxan lu ko mine diini ba aji di daanu nga xam ne yàlla nee na maa njëkk a jox sariya non ba ci Ibrahima ba ci Moussa ak Insa ñoom ñëpp li ma leen wax mooy taxaw leen diini ji waaye na ngeen nekk benn bu leen taxalikoo ba ci bi sallallahu alayhi wasallam ba ci wëllu yu baax yi borom xam-xam yëpp sariha ak jooju rek moom la ñu yeesal léegi nag munaasib boobu nag moo tax sëriñ bi ne anil la ci saraxtuhu min xaaja yàlla na ko yàlla fayal moom borom Tuubaa